gars yi nañ ñu xaar rek waaw ah. billaahi amul xalaat sax ñoom ñëpp ci dox gi laa yem Thank you.